naa boobu ba tey yéen a nga toog di ma déglu di ma xaar ci kaay pour ñu tas ko ràcc ko mu wasaa waaye nag boobu ba tey dama am euh, ñeent fan yi coow yëpp sama soxla yëpp a ngi taxaw maa ngi waroon a dem toppatoo ay yu bari war a am yu ma doon lijjanti looloo tax ma génn génn bu yàgg moo tax gisoo leen ma naka ngeen def ger naa leen bu baax nuyu naa leen ñëpp. ci seen tur ak seen sant di leen ziyaar di leen baalu ak ci àjjuma bi di leen ñaanal jàmm yàlla may leen jàmm ak wér ak wérle di leen wax jumaa mu barak ate nag nañ leen jublu ci kaa bi kaa bi may ñëw tey nag kaaw Amina Poté la yaakaar naa ne Amina Poté nag soo leen gisee ma laal kaa bi parce que ci commencement sama vidéo dama laaloon kaa bi maa leen digoon ne leen dinaa leen indi leeral ci kaw Amina Poté bi te comme maa leen ko wax te bindaloon naa leen ko sànq ma ne tamit foog ma dugg leeral ndax ay ay makkat soo leen joxee ndékki ñu yendu si la heure añ su jotee jox leen ñu añ reer bi su jotee jox leen ñu reer dessert su jox leen ñu dessert. dara nga day ma du du noonu man yéen laa am yéene sama xarit. yéen ñi may déglu yéen ñi may safoo yéen ñi may faale yéen ñi ma bëgg di ma bind di ma wax lu baax di ma ko digal man yéen ñi laa am man yéen laa gëm gëmuma keneen ko du yéen yéenee sama nit kon nag bisimilah ñu jàll ci kaawu Amina Poté dafa fekk na kaawu Amina Poté soo leen gisee ni may waxee sax xam ne dama sol léegi am naa Poté nag soo leen gisee ma bëgg a ñëw wax ci kaa bi naa nag. Euh, dama ko xam xamuma ko sax comme ay nit présenté ma ko wala xam déedéet dama ko xam personnellement ma xam ko ci loo xam ne yaakaar naa ne su ma génnee wax war naa wax te su ma génnee ñun su ma toogee may porteur de voix mën a wax am fu ma waxee am waxukaay ma dégg ñu naan naa Poté di jël baat yu ñaaw walla di génn di wax ci moom loo xam ne dara amu ci ay waxu sos la ay waxu noon la ak ay waxu yàq der yaakaar naa ne man am zoo sama waxu démb rek mooy sama waxu tey man lépp lu may wax rek daf may leer waxuma daray sos waxuma daraay fen waxuma daraay kenn kenn ma encore une fois te li may wax daf ma leer ak lu ma maîtriser la moo tax ma koy wax Amina Poté nag man ak moom dañoo am jaar jaar jaar jaar bi ñu am nag suma nit la muy sama muy sama sœur ma xam ko bu baax a baax a baax a baax a baax daan daan añee këram daan réeree këram daan dékkee këram li leen di wax du at yii de boobu maa ngi doon xale bu ndaw di dem école li ma leen di wax sama jeunesse la bi ma nekkee Kaolack am naa biñ koy takk bi ko Ndiir Mbay di takk moo moo mel ni tey ñu takk ko may ko ay millions yu bari Ndiir Mbay takk ko mu nekk xale keroo bi ko Ndiir Mbay di jébale mu fekk ko jànk mu doon xale bu ndaw ndaw ndaw ndaw boobu am naa ngi doon xale mu doon féyal nag famille géwél bu mag famille géwél ba mu doon fay mu doon fa xale jëkkëram yóbbu ko ci këru famille de kër la tabax ci kaw tali national bi yaakaar naa ne ñi may waxal képp ku dëkk kaw la ku na xam na fi Saalum soow nekkoon kër googu jëkkëru Amina moo ko moom mooy ki jur bi Petit mii Amina feer la xam ngeen feer mooy Amina xamut cigarette xamut sàngara xam nga luy kaaw Amina ambiance kaf ree gis nga yii muy def nii yii muy def nii di di di wax lu mu yàgg bëgg la lu mu yàgg du lum jàng lu mu yà yàgg di def la lu mu yàgg di ko di ko di ko rêve di ko fowee ba yàlla fekk si ko man la woon ami naa Poté ak beneen femme buñ doon wax Kumba Dagga Gueye Kumba Dagga doom mbaay ñoom Kani Gueye papa Gueye daanu dem fenn fenn fenn këram kër jëkkëram këram kër jëkkëram nag jëndal ko oto jox ko tabaxal ko kër gu mag moom dong moo fa nekk ak benn njëkkeem duma ko fàtte moom ak benn njëkkeem ñoo fa dëkkoon ci kër gi mu am jànkam am booyam gis nga lalam ba mu daan tëdd ak jëkkëram lalam boobu ca daan tëdd ak moom ñuy wax kër ba ko jëkkëram di jël di jël jóge itali duma ko fàtte ma ko mbay kër bi mu koy jël jóge Italie bëccëg lax Amina ji xoolal jébbalewuñ ko sax guddi bëccëg parce que tellement dafa soboon sob boo xam ne ñu ñu ko di ko baatal baat boo xam ne bëccëg lañ ko jébbale bëccëg naaj bu tàng jër lañ ko jébbale ñu fekk ko jànk mu fees dell jëkkëram kontaan may ko ay million kon yaakaar naa ne yow miy génn di wax ne Amina dafay njaaloo wala Amina day def lu bon wala Amina dafa am ni ñoo xam ne yàlla moo def ne amuñu saasu sëy waaye Amina si boppam xamul sax sigaret xamul sàngara xamul xamul boîte Amina de su génnaan Kaolack rek mooy Viviane daan tëgg su ma fàttalikoo su Viviane daan tëgg si ay. fàttalikoo su daan tëgg wala Youssou Ndour wala yeneen artiste parce que Amina fi mu dëkkoon soriwutoon fi ñuy defee show mooy cercle mes officiel yaakaar naa ne si la Amina daan génn waaye su rombee loolu Amina baali sax doontoon affaire waa kaw xam nañ li may wax. Amina baali sax doon affaire am nit nag kenn du kenn lu bon di ko teg ci daram nit xam si dara te du ko wax man porte de voix encore une fois man amatuma sax numéro Amina Poté Amina foog naa bi ma koy mujjee gis 2009 la ñu tuddee woon ma Dakar na door pa Mauritanie ca capitale ba Nouakchott ci laa gëjee gis Amina sama ay xale dalal ko ñu naan ko sama xale ba ko dalaloon doon ko fuddan fay euh, fayal ko fuddan bi defal ko invitation defal ko bon arrivé ñu naan ko Pauline Sarr ñu ko Pauline Sarr Pauline moom su ma déggee dina xam li may wax bu baax 2009 laa ga a gis Amina aw ma sax numéro Amina yàlla mi ma tiim ak sama tray bàmmeel fii ma tëdd nii aw ma sax numéro Amina Poté 2009 laa gëj a gis Amina dafa fekk ne dama placé pour wax ci moom rek di wax. parce que nit tam soo ko xamalee lu baax ñu génn di ko waxal lu bon yow nga xam lu baax loolu nga noppee ko loolu kaar la lislaam da koo tere. 2009 laa gëj a gis Amina bi ko fa 15 15 di je 15 indee ko fa ca laa gëj a gis Amina ba jëm si yàlla tey jii xam ngeen loolu yàgg na. kon yaakaar naa ne li may wax dama ko xam dama ko maîtriser Amina xamul lu bon Amina feer la xam ngeen feer mooy Amina Amina dakaar sax pour mu demaan soirée sax bi muy doog a dem Dakar sax pour mu demaan soirée sax problème la kon yaakaar naa ne kii am doomam am ay njabootam sëy yàlla moo koy tudd ci aras su yàlla tuddee ne fukk jëkkër ngay am ala kule àllen di nga ko am waaye su yàlla tuddee ne doo am ne doo am euh, ne ne doo am jëkkër doo am jëkkër dafa mel ni ñi sëy ay at amuñu doom rek nit lu yàlla tudd sa jë destin la àddina bug bu euh, bug la bug comme livre livre mooy àddina saa yoo xëyee page bi ak li ngay liir saa yoo xëyee page bi ak li ngay liir loolooy àddina ba keroog livre bi di jeex ba bañ àgg ci page cent quarante quatre wala cent quarante cinq ñu ne livre bi kat liñ ci war a liir jeex na loolu àddina moo waral sa bésu dee nga dee fii kuñ tëkku nga ragal yow la kuñ tëkku nga ragal gëmatoo yàlla parce que àdduna livre la ku sa waxtu jot nga dee ku sa ku sa ku sa ku sa ku sa heure jot nga dee ku nekk yàlla bind na fi ngay deewee ñii ci boom la ñuy dee nit ñi gëm yàlla te ubbi seen xel mi def ci ndox yàlla bind na ne kii ci boom lay deewee ñii mu bind na ci accident lañuy ñuy deewee ñii mu bind na ci lakk lañuy ñuy deewee ñii mu bind ci xaru lañuy ñuy deewee ñii mu bind deegu feebar moo leen di yóbbu ñii mu bind dañuy tëdd rek nelaw dee deegu yomb ñii dee deegu ñaaw ñii dee deegu neex ñii dee deegu naqari dee moom ala li ale num ñëwee rekk noonu la ko yàlla tuddee sa bind na nit ñi gëm yàlla te bàyyi ragal bi te bàyyi wax wax li nga xam ne ci nit dara leeru la ci man am do lu may wax daf may leer encore une fois man kenn du ma yónni man du ma nit bu ñuy yónni man ñi ma jege ak sama jege xam nañ ne am do nit bu ñuy yónni lu ma wax rek dama ko war a wax man la man du ma nit bu ñuy yónni man ñi ma jege ak sama jege ñaale xam nañ ne am Amzo mii du nit bu ñuy yónni man lu ma wax rek dama ko war a wax man lu ma wax man maa ko sentir pour wax ko lu ma warta wax rek duma ko wax kon nag maa leen waxoon ne damay génn pour nettali kaaw Amina bi moo tax ma génn pour wax ci waaye di leen wax ne du ma bàyyi mukk su ma wax saa yu ma waree génn wax à tout moment mën naa génn wax te mën naa al fii ba suba mu am na kaa bu ma nekk di traité su sottee dinaa leen ko tegal ci taabal yaa ngoone bi bàyyiwu ma de coow li kañ laa bayi waaye li ma war a wax dama koy wax